Euh, bismillahi rahmaani rahim euh, alhamdulilah alhamdulilah maa ngi sant yàlla beneen yoon sant naa yàlla ci delloosi bi ñu yàlla delloosi fii ci Pané sant naa yàlla bi nga xamee ne waaye jigéen ñi déglu leen waaye ngir yàlla jigéen ñi déglu leen sant naa yàlla ci waxtaan wu nosu wi nga xam ne déglu naa ko fii bu bàyyi ko ci cheikh Mouhamadul Qarashi ibnu cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu muy waxtaan woo xam ne li ma ci dal moo dal ñëpp ku nekk ci ñun bi nga koy déglu yaa ngi koy déglu ci sa xel balaa sax xoolaa yëngatu sax ndax yaa ngi xam ne kii wax waxtaan wii kii wax waxtaan wii sonnee na ko ki teslaay yu wëri ci xam-xam fexe na ba mu def ba mu dëppook li muy oote ak moom sax moom ci boppam moom mi koy wax yooyu yëpp am na ci leneen ngeen gis nit koo xam ne dafay wax wax joo xam ne daf koy nettali rek waaye amu ca benn cër waaye Mouhamadou Khoureychi mi mu doon wax am na ci cër yu rëy boppam la doon waxal ndax taalibe bàyyi la gannaaw bu mu doonee jullit taalibe bàyyi la taalibe bàyyi la waaye doomi bàyyi la ñaar yëpp du ci perte benn waaye doo taalibe bàyyi dafa doon responsabilité bu rëy bu rëy ndax bàyyi fuñ ko tudd rek li xel yi njëkk a daj mooy njub xam-xam baax tabe nangoo jaamu yàlla bëgg réewam bëgg goxam bëgg ñoñam am fit ci lu yàlla digle ragal lu yàlla tere xel yëpp dinañ àndandoo daj ne jëmmi ji tey mooy yooyu yëpp moo booloo ci moom boroom xam-xam boo xam ne dafa tabe ci xam-xamam bu la yàlla mayee ngay doomam te foofu nga em coono ñëw na xam nga lu tax coono ñëw na bàyyi dafa nekk ci Paris yàlla yóbbu ma fa booba ñu nga Égypte di jàng ma toog ba yàgg ma ne leen ah ñun suñu fii yi xaw ma fu mu jëm nit ñu dem ba toog mag doom mag ñu dina yóbbu ci ay école ngay jàng di éeg ka wàcc man gaa maa ngi dem ren waaye del du ma dellu ma demee foofa ma fay toog def ni gaañ yi def booba dem Europe jafewut boobu Sénégal ak France amul boo amee billet rek ngay dem dama dem ci ëllëg sa bàyyi ñëw benn jigéen moo dem Gare Lyon fekk fa ajjuba siin yéen ak Ibra Siin leen bàyyi ñes dem maa ngi ñoom maa moom a bokk avion ah ma dem laaj leen ko ñu ne ma am la ku ñëw waxuñu ko de waaye xamuñ fu mu ne ma leen ah du ngeen jóg ñu laajte ji man maa dem consulat bu senegal ma ñu ne ma bàyyi ci hôtel bu ñuy wax hôtel Baltimore ci Paris deuxième ma dem tàkku tàkkusaan la àgg ci moom gis ko mu ne ma bi ma ñëwee laa dégg ne yàng ngi fi ma ne man de am naa wéttal waaye yow ndekkee na moo sa baay ma ne ko léegi laa dégg ne ñëw nga ma doon wër fi nga nekk xam nga li ma njëkk a laaj lan la loo fi ut ma wax lu du dégg yàlla ma ci nattu bo ci la ma yàlla nattu ba léegi ma ne ko bàyyi man dama amee rhumatisme ma di ko faj mënta wér ca Égypte sama ben xarit docteur nema ma sama ben xarit docteur nema amna suma collègue bu nek Égypte so mënoon ag ci mom mom da la mën fajj faj ma gis nga ko ma ko gisaguma ko ma nga gis ko sa la wax na nga ñew wax mako man ko sama tanki ni nii nga sama tànk yi dafa ñaaw ma romantisme suma feebar bayila la ñun bi mu ñuy dara doon nañ mag wante yéen da ngeen koy judduwaale yéen amu leen sens yéen da ngeen koy judduwaale ma nekk ak moom ci di wéttalam ci hôpital li ma jublu ci nettali bi mooy benn bis bàyyi dafa toog ak man man maag moom ak yàlla rekk ci saal bi mu xol ma kérok la am kérok la jot 4 séjours bo 4 séjours yi bo woné né mos ngaa jaar France rek ci ci 70 dix yi soo joxee firnde boobu rek ñu défal lako té ñun bañuy départ dem Égypte man ak Abdou Salam ak Cheikh Macky rahimahullah Abdou Salam baye bi mi jëlulon moy Dakar Paris Paris Caire ma woné cachet bobu rek ci passeport bu magat bu mu amé won ñu défaral ma carte mané bon jeex sama toogaay wér na ma toog ak bàyyi mu xool ma ma xool ko mu ne ma Bachir mbaa sax sa xel mi ba jàng nekkul ci tooxuma ko dara ma ne ko déedéet ñemewu wax lu déedéet mu ne ma dëyal ma maanaam wax ma loo xam ne da danaa ci gëmee loolu ma ne ko maa ngi koy gëñ ci sa dund bi mu ree ne ba xam nga ne loolu du ngéñ de géñal xam nga yow xam nga seexu ngéñ wallahi billahi tallahi xam nga ko ma ne ko bàyyi jaral na ma man li ma géñee noonu jaral na ma mu ne ma na la ko gis nga taaxi ko yu gudd yi ak mbedd yu rëy yi ak auto yu bari yi bu mu sa bët bi mukk dem leen ngeen jàngi li tax may nettali net bi muhammad mi muhammad Khouraychi daf ci daf fe wax legi ci biir waxtanam lol moy nit ko xamne limi wax dafa dafa def tajarrud ani zaatiya gisatul bopam gisatul dara fay wax ngir yalla rek bàyyi ne ma ku ci jangut ci yeen su rir daga non em sa bop doyna na do em fofu daga sanku daga sank ñi la wër te daga wax motax bëgguma cioro bima am yep nak mu ne ma am yep moy bëgguma ngeen di wax ci lu xam-xam dama bëgg bu ñu defoon dara ci yeen bu juume sax fa borom xam-xam ñewé def naan ki def li moko tay waye borom xam-xam la dama bëgg ngeen di wax ci xam-xam bisa ngi ñëw kenn ci yéen nag du noppi xam ngeen bis ngeen ni mu bëree fi mu nekk man toog naa rek ci meddina benn waaye na bàyyi na man saala man yi daxalal janna gaa yi ko toog ak moom laaj ko ne ko loolu mooy lan ci araab mu ne bàyyi mu ne ku ma nuyu dem aljana ñu génn dox ay paa yu sori ma dab ko ne ko ma saalaama ak sëllama alayya du benn yu tamit bu dee loolu la bàyyee ko wax sax bàyyi saalama mooy ko am ak man jàmm waaye sallama yow wax nga ko fii gaa yu bari di nuyuwante dégg nga du noonu yow tamit gis nga to fayda bii bàyyi yàlla teralee Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu waxuma ne jàngut du xam yàlla de du am cër ci yàlla waaye mënoo koo yóbbu fenn soo amut xam-xam te dafa ànd ak xam-xam téere bi bàyyi njëkk a téere xale yu jigéen ñi wax nañ ko fii ngeen dégg nu mu tudd déet waxuma ruuxul adab tafsiratul anaam bi ann al ilma huwa al imam jëf joo gis bàyyi na xam-xam mooy ilimaan ja jëf juñ jëf ju xam-xam jiitewut jëmut fenn gëm yàlla dafay wér gis nga islaam ak imaan duuñ benn gis nga laqad radiyallahu du jàng ngeen ko anil yàlla waxut anil muslimina laqad radiyallahu anil muminina la yàlla wax iman dafa am doole doole doole ba nga xam ne ko am ci islam moom ñun ñëpp gëm nañ ko ku ne xam nga ne indiwoo fi sa bopp te da dee amul benn wax yàlla lay dundal moo lay jox loolu moom ñun ñëpp ànd nañ ci gëm ko waaye iman nag mooy yëf yi moo tax yàlla dégg naa ci benn boroom xam-xam mu ne li dal aalamul islam yëpp dafa leen daal parce que dañoo tajrit seen bopp ci imaan am ci lislaam yàlla yàlla ndimbala ma ci mu'min waaye waaye muslim moom islam moom jéego bu njëkk la boo ci amee taxaw yàgg ñëpp m am kon imaan dafa am solo gis nga Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu maa ngi fàttaliku gën nañ fee gone tubaab yaa ngi fii ñuy ote élection yu méttee méttee métti ba des SFIO bàyyi ne wax caw xam ju siiw yooju mu waxoon lenn ci taalibeem yi waxoon ca seen wax yu siiw yooyu ñu waxoon bàyyi daf ne woon su ma doon ndox ci àll ba gis ñaari bant bii ñu bind ci Mouhamadul Amin bii ñu bind ci Léopold bii danaa ko for fomp ko fóon ko def ko ci sama poos bi ci des su ma amee rombay taal buy tàkk danaa ko ci sànni du ma leen emale ba àddina tukki Mouhamadul Amin ak Léopold xamoon na li Senghor di wootee lan la fii senegal nekk nii tey Baye xamoon na ko def na ci te nëbbu at même référendum yu njëkkee sax dafa woote wëy daf na dañuy fanaane way yonent bi ba bër set ñu ote way duñ ote non duñ noonoo parce que xamoon na ne ñii ñii def référendum bii fi ñu senegal Sénégal baaxut loolu ne dafa bëggoon tubaab yi déedéet ndax ñaan na ne maa ngi ñaan yàlla yàlla indi jamono boo xam ne képp ku duut nit sénégalais doo atte senegal te loolu ñaan yàlla nangu na ko mel na ni démb ci passé élection bi ñu ko wotee ba pare bàyyi dafa génne ci jumaa ji boobu rajo xewagut géew ci diggu bayal bi taalib bi yëpp a ngi toog mag ñaa ngi toog mu ne ñëpp nañ àndandoor wax alhamdulilah ñëpp wax ko ba mu ñett yoon mu ne ñun gañe nañ ñu jaaxle lool gañe nañ te BDS gañe na bàyyi ne yàlla santoon nañu dara ñu def ko jullit waxtu ko yàlla sante dara mu def ko rek na sant yàlla xam ne gañe na unsur axaaka zaliman aw mazluman Muhammad xam na ko fa léegi yonent ko wax dimbaleel sa mbokk bu tooñee buñ ko tooñee waaye yaa rabbi dégg nga su dee mazlum moom nuñ ko nuñ koy dimbalee xam nañ ko waaye zalim ne da ngay téye ci loxoom ñun Mouhamadou Lamine moo oote woon te booba wanoon ne bàyyi ne ko suñ amee réew mi nekk ci suñ loxo incha allah danañ fexe ba réew mii lislaam am fi ndimbal ndax naataan na ñoo xam ne dinañ dimbale jullit ñi dinañ dimbale réew mi lislaam ñëpp xaj nañ ci xam nga lislaam ñëpp ci xaj lislaam rek dégg nga euh, ci la yàlla wax ne لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين بيفرين دونك يين بو فكي بونو تيين ديمو لينا جيني سين ريوي nekuñ di len fexel pexel yu bon yalla mu ne na ngeen mandu ci mbir te na ngeen man ngeen di malante mom yalla dafa bëgg ku mandu inna ma kon Muhammad wax nga deug cër yi ñu jox ñi yalla jox cër ci rew big mang mom rek tok tok ñuy deglu hadith yonent bi dedet ñuy deglu baye ci auto bi bi ñi ñew mu ne ku laaj nguur te yelloo ko bo ci jotee yalla daf la koy baye mu do so fitna bu leen laaj nguur boo ko laajut nag ba yàlla teg ko ci sa loxo yàlla la cay dimbale ah waaw ñaar téeméeri nit wala téeméeri nit ak nangam téeméeri farak nangam buñ fi bëggee benn jànq foo ne dañuy am na ci ñoo xam ne dañuy fo dañ koo bëgg a fooye rek waaye jànq bi taxul leen a jóg téeméeri nit ak nangam mën nañoo bëgg réew moo xam ne mën nañoo àndal dañoo bëgg réew moo xam ne mataguñ ñaar fukki million Égypte gii barki Dembo Ndiaye lañ génn ci élection xam nga ñaata millions cent vingt millions ñeenti candidat lañ amoon million waa shirin million nafar ñeenti candidat lañ amoon ñun mataguñ 20 millions téeméeri nit ak nangam ah ku bokk ci tontine ñu teggil la sax nga àgg déposer caution ne damaa soxla réew mi Abdullah ibnu bay ibnu Salul ku ne xam ne naa feq la yonent bi xam na ko ku ne xam na ko dafa jub jataayu yonent bi yonent gis saaba yëpp seere ku ne jël sa mbagg sa mbaggi morom dégg nga ñu wane ne duñ ko xajal mu toog yonent summi abaaya bi mu soloon sànni ko ko pour mu laal ko toog mu yëkkati abaaya bi fóon ko saxaaba yépp xajal ko mu ñëw toog ba dend ak yonent bi yonent na leen lim gëm ak lii ko yàlla teg ci loxoom ñaari mbir la bu leen ci weddi benn ni mel mel na ko waaye lii yàlla teg ci loxoom nag muy teraangay àddina su ngeen ko gisee kum ci naqari ci yéen rek jëf yàlla naqari na la kon nañ moytandiku ku yàlla cëral ñu ne déedéet du am nañ ko moytandiku bu baax xam nga bàyyi su ko neexoon mu opposé Senghor opposé na ko waaye opposition xam ñëpp xam nañ ko lu taxul mu di ko opposé du bañ Senghor ci boppam waaye xam fi mu bëggoon a yóbbu Sénégal moo taxoon mu opposé ko nañ mooy tandiku nag ñun ñun gis nga lii xew si suñu réew mii nii doom di sàllalu baayam di sàllalu ndeyam taalibe di sàllalu sëriñam fi mu ne di teg ci deram lu bon te yàlla ay ayoon nañu ko bu yàgg ca jamono yonent bi dem banaan gaay yi laa tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an tahbata amalukum wa antum la tashurun toog ci kanam yonent bi ngalalali di wax léegi boo toogoon léegi fukki taalibe bu ñu toogoon seen kanam sëriñ ku ne téléphone ñii di seetaan tiktok ñii di seetaan nangam mhm. statut ñii di seetaan nangam nang lu duñ sëriñ bi ak li ñu fi indiwoon ak li muy wax lan la ne rek yaa ci déglu lu gaa lu gaa wax tay ak lu gis nga gis nga liñu génnee tay gis nga video bi diw def lu muy am njëriñ lu ban njëriñ la ci rew rew mi nga xamne mag ñi fexe woon nañ ba soudé ko ci gëm yalla ak bëgg yalla ak top yalla ak ormalanté sa mbokam bay sa sa ak bay sax bu la fekke ci mbedd ngay def lo warta dem mu sañ lay yar duma la téye ci sa loxo ba ak ci sa bay ne ko dama ko fekk muy def nangam léegi kenn ñemeetutoo wax kenn dara te pourtant bi mu xewee léegi yàggut nag mu tagut fukki at at yu tuuti ci la Sénégal ci la Sénégal futteeku def yaramu neen nii turuqu suufee yi ngay gis leen taxawoon a jóg am na ñu bari xamuñ ko Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moo doon ilimaan ci jumaam jéemu tabax ba muy zawiya moo cay ilimaan ba muy juma ba muy jumaa ca juma jam tabaxoon ca 1900 nangam moo cay ilimaan 58 bii mu nga xam ne parewut sax ci kanamam moo ci doon ilimaan ci julli juróom ci wasifa naafila mu taxaw moo ki jàng naafi mu ki tari ki jàng alquran ji naafila dégg nga mooy jiite ayaat yi ñaari ayit yi bu fekkee demut makka muy dem makka batale ku julli tabaski moom ma nga makka mooy jàngale gannaaw bu mu jullee tàkkusaan ba pare xam-xam mooy yaraate benn jikko bu mu daan nëbb alhamdulilahi rabbil alamina yàlla def na amu ko woon jikko bu bàyyi daan nëbb amut bu la neexee léegi nga toog ni meloon yëpp nga wax ko ci rajo ku la weddi rek dafa xamut bàyyi waaye ku xam bàyyi bàyyi xamoon na bàyyi amul jikko bu ñuy nëbb jikkoom yépp dafa ne woon amru waadixun fala yàlla gi ñuy ah di jooy xam nga ne kun xamut yàlla <laughs> fekkoon ne dara amut kay yow li def nii da nga gis ne amut waaye bi ñu la jàjjee rek nga génn di jooy kon nañ bàyyi ñuy wax di ut yàlla ba ba am lu la leer ci yàlla nga ne dootoo ko topp loolu amut loolu amut bàyyi ñes nga ne képp ku julleetut ci lislaam doo jullit ponk lislaam yi juróom la boo ci rotal ñeent ci des yëpp topp nañ ci sa kaw rot boo ci weddee benn yëpp nga weddi bàyyi ànd naa nit dem makka bàyyi or bàyyi xarmal ne ko nañ dem mu ne ko rus mag mu am ne woon dana oddu ko def yaram mo len di oddu jartul muy dem makka wallahi lolu tontu bay ah serigne bi mag mooy ni man da def taali sama taalibe yi di ma xool nii man oddu la yu ni di def yaram mo len xalaatuma ko sax bay nako noy def mu nako sol sama yere yi bayo ku la gën oddu na yonentou bi oddu na mom mi la koy wax mo la gën fouf ndax bo la upp xam-xam te oddu na lu ci ne yàllaa ko digle li yàlla digle nga def ko am na lu loo ci setantal yaa naan li baax na ak baaxut fayda bii yàllaa ñu ko indil rek xoolal ni suñu at yi tuutee fi mu ne xeetu yonent yàlla muhammad yàlla dafa leen a bëgg bëgg bëgg ba nga xam ne may yi may li mu leen may genn jaamu yàlla gu nekk xoolal man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha bu dee sunnatan sayyiatan fa alayhi wisruha wa wisru man amila biha ila yawmil qiyamati yàlla di fay benn jëf ba ci juróom-ñaar ba ci fukk ba ci juróom-ñaar téeméer man qaama la dégg nga asiyaamu lii wa ana ajzi bihi bàyyi mu ne yàlla sax far mooy feek weeru koor yow mi or wéru ko wéru ko jot nga ne maa bañ tok lek aj jot nga am khalis wir mana dem dikbayi baye sa keur dara nga dem makka genné asaka jot nga ne duma ma ko genné ma bañ ku bëgg khalis dama liggéey yow yépp ku muy dal dañ la jur ci l'islam rek jox la tuuru lislaam ngay tuddo l'islam waye do julit yooyu rek nag la suufiyanke yi moo tax seen seen seen yoon yi ñu fent ko ngir tàggale nit ñi ak sawaayib yooyu tilim tilim yooyu nekk seen bakkan yi bañ desee ak yàlla rek jox yàlla lépp ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg da wax li Sidna Omar daan wax xeewal ak mbas ñaari sàll yu yeewee lañ su ma buntu kër bu ma ñëwee moo ci fekk nga taxaw rek ma war a dem sama yoon sama yoon nekkut ci musiba xewal yam la ci amale te kat bu ken dakal xam xam-xam ci l'islam ben way dafa ñëw rek nuyu sidna omar fek boy khalifa sidna omar nuyu ko ne ko kayfa haluka mu ne ko asbahtu uhibbu lfitna wa akrahu lxaqa wa usalli min gayri wudu ولي في الله ما ليس ما ولي في الارض ما ليس لله في السماء سيدنا عمر قصه mu digle ne nañ ko rey sant Seydina Ali nuyoo si xëy ziyaara si maa li araka kida man yaa aba nangam mu ne ko ah yonentu woon agul ñu gannaaw nit ñi commencé weddi yàlla mu ne ko lu xew mu laaj ko mu wax ko ko mu ne ko loo digle mu ne nañ ko rey mu ne ko mbaa xam nga ne da jaas jiñ ko reyee ci lañ lay reyee dafa laa wax loo déggul rek mu ne ko xatta anta ya abal xasan yow sax yaa ngi bokk ci njuumte yii mu ne ko déet duut njuumte daf na la maa ngi fii bëgg fitna innama amwalukum wa awlaadukum fitna yàlla ko wax ci alquran alal ak doom fitna lañ yow mii maag yow mii ku ci bëggu doom ak alal mu ne ko ñun ñëpp bëgg nañ ko mu ne ko benn wa akrahul xaq maa ngi fi di bañ dëgg mu ne ko al mawtu xaqun dee dëgg la ban bakkan a ko bëgg mu ne ko benn mu ne ko ñaar wa usalli min xayri wudu damaa ngi julli te du ma jàpp mu ne ko bu la neexee nga laxasu sa tànk sa tànk jabar laxasoo seen kow lal ngeen sàngoo mbàjj ngay julli ci yonent bi ku la wax ne wax ne jugal jàppi mu ne ko kenn mu ne ko loolu yaa ngi koy def maa ngi koy def mu ne ko waaw mu ne ko nag am naa ci kaw suuf lu yàlla amul ci kaw asamaan mooy jabar ak doom yàlla moom ko jiñ yooyu mooy bu la safara bi sal muqaamu la ko wax bi ardin laysa fiha abul xasan dëkk boo nekkut dund fa daganut kii dafa doon jullit ba pare do xam-xam bi yonentu ne maay njëndil xam-xam def naa lii mooy bunt bi islam dafay diine xam-xam la jam-jam yi nga dégg l'islam am ko yépp ñiy pratiquer l'islam lañ te li ñuy pratiquer xamuñ ko te teguñ ko ci yoon kon fayda bi loolu rek lañu ñu indil bàyyi maa ngi gis ci mbindam mu sas magi taalibe yi fukki junne salaatul fatiha ci suba fukki junne ci ngoon ak say awraat sa wirdu lazim ci faja ci suba sa wirdu lazim ci tàkkusaan sa wasifa ak sa yeneen jaamu yàlla kooku tal na lu muy defee lu naqari yàlla fukki junne salaatul fatiha ci suba fukki junne ci ngoon boole koog te dara du yàqu salawaatul xam si da ko julli te ci mbooloo nga koy julli te bàyyi ne képp ku nekk ci géew bu ñuy wasifa muy géewub tijaan te amoo benn ngant ngay wasifa yow kenn ñu ne cheikhu tijaan ne na wa alimtum ma fil wasifati la ataytumuwa habwan booy raam sax ni koon da ñëw ku julli ku wasifa yow kenn ci dëkk boo xam ne géew tijaan nga fa ñu dafa wasifa Cheikh Tidiane mu ne amoo wasifa xataa ku julli ci jàkka sax ñu lal géewi wasifa te tijaan nga te amoo ngant ngantal laab nga jóg soxla booy mën a dox Cheikh ba Tidiane mu ne yàlla bu mu sotti Baye Ñas teg ci ne doy na gàllaaj ci dëkk bu ñu koy refee wasifa jarul dara nag jarul daru ñu lay gardeel guddi amul mu ne jar na doy na kaaraange dëkk bu ñuy di wasifa moo tax jumaa ji yàlla na pare te yàlla nañ ko dundal ci wasifa ak julli ak jàng ak def ci madrasa li Cheikh Mouhamad wax léegi arka gis nga jumaa yonentu ba lépp li tasaaroo ci lislaam ci jumaa yonentu ba lañ ko daan tasa lañ ko daan jàngalee ñun ñooy tabax jumaa di ko tëj rek di nodd di fa julli ji waaye jumaa duut pour loolu jumaa dañ fay def jàng kursu tadris daf fay am boroom xam-xam toog fa di jàngale gis nga Sénégal gii am na ñu bari xamuñ teggiinu jumaa sax xamuñ ko lu ñuy duggee ci jumaa xamuñ ko lu ñuy def ci jumaa xamuñ ko boo duggee ci jumaa yi léegi waxtaanu politique yi dafay mel ni tulleeg nalle nit ñaa ngi amee rajo sax di déglu ci biir jumaa yi fi mu ne ñi amee seen téléphone yi di déglu di seetaan ay vidéo juma téerantu na ne loolu dafay màbbu jëf dafay màbb jàmmu yàlla loo def ci juma lu tudd yàlla ak balu ko dafay màbbu jàmmu yàlla nit ñi faaleetuñ loolu fi mu nekk ñàkk xam-xam rek la nag ah Mouhamad tudd na fi ba tudd responsabilité jigéen macha allah jeg jaa ngi nii toog sañse yi rafet nañ de dëgg yàlla am na ci ñoom ñoo xam ne sax fi ne ñibbi nañ bu doon Kaolack am na ci ñoo xam ne départ nañ bu yàgg seet fuñ pootu dem ñibbi ne guddi na jigéen mooy genn wàllu société fukki maqaamaay yàlla ooteel jigéen góor moom la ooteel jigéen innal muslimina wal muslimaati ba ci aadallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman góor ak jigéen rek la teraanga nga yàlla indi ci àddina yépp ndudut du ab yonant jigéen ak góor a ko moom xutbaaniyatul osma bàyyi mu ne mooy mag gi gën a màgg gannaaw ak yonant ndey Faatuma toog ko njëkk doon gannaaw baayam juróomi weer soog a fekkee baayam yu nag léegi sa jabar toog ak yow wala sa doom ju jigéen du la laaj lu dul xaalis lu xaliss rek dula ko laaj adabul islam yonam nekut ci du bëgg dem fenn sax yëgal lako suba dama bëgg a dem fenn dafay sañse peinture posé ay xef tek ci ay wé de po kawr go ne baxut de nga ñoo fekk la nga tok mu ne la may ma nangam ma dem ci xewu di wa su la fekkul nga amee xaliss mu ne saxal lool rek luma la laaj nga ne awma te kat jigéen warta genn kërëm metar ci luddut ngërmaane jeukeram fuqaha yu dem nañ bané ku genn ñaari mètre sa buntu kër ci taggo sa jeuker bam bam nangu bo dëppoon fekk mu genn adina amo droit ci teñjiko manam am lo droit don ñaari mètre rek sa jeuker d'accord Amérique gi passé gis na ñu fi bàyyi seen jeuker yi dem bañ waxee ak ñom ñu leen bu ngeen bëggatu tas leen man dem na dugg ci Nicaragua gi kon jigéen ayca mooy école bi njëkk al ummu madrasatun ida aadattaha aadatta shaaban tayibal araaqi ñi ngeen gis ñëpp yonent jigéen ñee leen jur xulafaa bi jigéen ñee leen jur wali yu jigéen ñee leen jur xutbu yu jigéen ñee leen jur waaye ñi ci prison yi saay saay si leen jur yàlla ñu yàlla musal ci loolu kon ku nekk ci yéen na tànn lim bëgg lan la yàlla mayewu ko nag daf koy jaay yi ngeen gis teraanga yi ngeen gis yàlla indi bàyyi mu ne yàlla bari na lu muy maye waaye jasaa ci alquran du jeex tak du jeex mukk jasaa u jasaa rek nga dégg yàlla di wax moo tax yàlla dafay jaay waaye tëdd nelaw ba mu neex la nga génn waxtu mu la neexee bu sa jëkkër dee wax ak yow feeg noppi doo noppi mbaa bu yoxoo yow sax mu sàppi la nga dugg sa néeg tëj delloo sa bunt ci nga loolu du maye teraanga ku ci dund itam dund ko ci bakkan waaye yaa ngi ji ci suuf suuf su ejaan te yàlla dafay fay jëf yàlla ñu ci yàlla musal kon na ngeen góorgóorlu góor góorlu bu baax ku nekk ki yàlla boole utal yàlla ci moom bu ko faalee ni mu mel si bu ci yoon nekk utal yàlla yow yàlla la sant nga sëy yaa ngi sëy utal ngërmande yàlla yàlla moom dana gërëm du sant inna allaha la yudiu man ahsana amalan jëf-jëf ju rafet yàlla du ko sànq mukk na jikko yi rafet senegal jikko yi ñaaw nañ lool fi mu ne wan nañ ma benn vidéo bëgguma ko woon a gis Cheikh Omar fuuti la dalee bàyyi benn sëriñ kuñ tudd rek teg saaga ci sa kaw loolu bi mu xewee yàggut de nit ñi wegootuñ waaye yooyu yëpp ñàkk xam-xam la ak yaradiku xamoo lislaam bi mu nee bay aaye sax bu kenn dugg booy ñëw ci kër laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xataa tastanisu wa tusallimu ala ahliha dégg nga bala ngaa dugg ci kër jàmbur sax na nga tàggoo nuyoo am na nit ñi ñoo xam ne dañu ubbi sa buntu ba yor seen bopp ci biir ne la ah ndekete yaa ngi fi salaamaaleykum yàlla ne taxawal ci biti nga nuyoo wa in qiila lakum arjiu farjiu soo nuyoo ñetti yoon borom kër gi borom néeg bi na la damaa jàpp demal sa yoon te nga xam ne li mu la wax noonu yàlla ko digal waaye diw dootuma taxaw këram mukk maa ko fëgg mu naan ma damaa jàpp loolu ngay dégg ñu teg ci civilisation la boo xam ne ba ko lislaam di wax ak léegi ñaata siècle la kenn xamu ko pourtant tubaab bi egg si nañ ci dañuy def sonnerie buntu kër boo dee kar léegi bu njëkk dañ lay ubbil si wala ñu xool la ci ay secret am lu ñu la xoolee nii ba gisew mi taxaw ci biti ak passé nañ foofu sax fi mu ne appareil la ñuy def ci biti xool la yow mii fëgg kan la bu ñu la bëggut a uyu duñ la uyu loolu jikkoy lislaam la waaye ñi koy pratiquer duñ ay jullit ñun jullit ñi ñoo waroon a pratiquer loolu teggin bu yàlla wax la waaye tiim nit ba ci kaw lalam mu tëdd nga naan ko damaa kër gi xanaa kenn newu fi maa ngi fëgg kenn uyuwut ma lu ciy seyoon yow dëkkoo fi gis nga invitation ujaaj yooyu Muhammad di nettali ne bàyyi daf ko daan def dafa am menn at ñu ne benn Sénégalais amul droit yóbbu ëpp cinquante mille makka gannaaw bi ci jamono Senghor la ñu crée ay taxawal brigade ci douane yu bari ci aéroport ku ñëw rek danañ la visité futti nga futti sa yére yi ba mu set góor ak jigéen bàyyi dégg ne douanier yu góor yi ñooy futti yu jigéen yi am ci jigéen ñi ñoo xam ne dañu dañu dañu riposté bañ na leen sumeeku leen mu ne ko sumeeku mooy lan andil jigen mu hésité ba ñu ne ko dedet li suñ liggey la dañ laa ah, dedet joxe bakkan man sama puteekaay kenn du ko gis ku dul sama bu jëkkër Sénégal yëpp nga tok ñom bañ fa joggé ko ku ne da nga ne li dotu am mu jeex mu jeex ci xam-xam ak ci teggin ak ci bëgg sa réew ak ci xam sa diiné lim la sant ak lim la ayé ak ku def lu ak li yalla bëgg nga lok mom rek la lool rek la moo taxoon bàyyi di def loolu waa dëkk bi nañ doon benn ittihaadul qura gis nga dëkk bii nañ def benn bennoo al waxdatu quwa wa tafarruqu lan la daaf dana ñuy léebu wenn lépp ñu ne genn góor dafa dem ba dee jot mu ngi am fukki doom yu góor boole ne na ma ku nekk indil genn bant ñoom ñëpp ñu dajale ko muy fukki bant mu jox ko taw bi ne ko da takk ko bu mu wenn say mu ne ko dammal mu biij biij biij ne ko bàyyi lii kenn mënu koo damm mu ne ko ah boo demee da rek joxal sa rak mu wër ba fukki doom yëpp war ñu ne ko bàyyi say say ko bëgg a damm danga nga ko sa nga seet meneen pexe mu tekki ko ku ne mu jox la benn bant na la dammal leen ma ñu damm ku ne damm foñete teg ci kanamam mu ne àddinaa ngi nii bu ngeen tàggaloo yee nit ñi def leen nii bu ngeen doowee benn kenn du leen mënal dara doole quwa la wala tanaaza'u fa tafshalu la yàlla wax wa tadhaba riixukum buñ fi nekkee fii di xuloo jaw jóob juuf njaay nangam nangam nangam nangam suma bajjan nga dëkk kër yoro suma tàntaa ngi dëkk fii suma naa ma maam nga dëkk fële suma maam nga dëkk Njaawarañ ma nga dëkk Canci Amat Fall ngeen dajaloo ji ay idéologie ay ñàkk fulla nit ñoo xam ne li tax ñu di leen tàggale seen soxlaay bopp rek la ñu bëgg leen tàggale te yàlla bool te yàlla tànnal loolu leen yaa yaa yoon naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu yàlla wax loolu yàlla ne woon na ngeen doon benn xamante nit ñëw bëgg leen tàggale ngir masala xam ngeen nangu ko loolu ñàkk fulla la bañ leen ku bëgg tàggale lank leen ay jullit ngeen islam mooy ponk bu mag bi ku leen bëgg a tàbbale bëgg la leen a génne ci lislaam bu leen ko nangul ak ku mën bu leen ko ko nangul foofu laay am di ñaanal Mouhamadou Kourachim yi di ko ñaanal maa dégg léegi bi mu dugg bi ñu egsee ba dugg ci jumaa ji xana gor géet moy mooy ji de foog borom daraajo ji ah mu ngok nee na ko juma jang ni fi la tollu matériel bi ñuy liggéey biir gi yépp yemb na maçon bi mo am ay galankor waye dañ koy muñal bam paré ci ñew man ko ñun ñett taxaw xamul lu mu ko wax matériel bi des bi ci biti ñaata la mu ne ko xamuñ ko ndax maçon bee koy xam mu ne du ngeen ko téléphoné mu ngi nii de toog seen xaju fi ñu ne ko banjul la ne mënuñ koo jot ci téléphone kooku bëggul leen a jëriñoo waaye daf leen a bëgg a mbokkoo daf leen a éy jàmm ki ñëw andi boppam indi ay mbokkam yëpp Medina ngi nii lu ëpp fukki bë fukki kër ci Medina wala lu ko ëpp ñëw nañ ànd ak moom oto yi ca station ba lañ taxaw maa moom a bokk oto doomam Cheikh Ibrahima la ebal ne ko demal seet oto bu ne lu ko mën a yóbbu pànne delloosi ko benn dërëm kenn génneewut ko ci oto boo andi jënd carburant aller retour kenn kooku lu ngeen mën a def lu dob benn gëm yàlla dimbalante ci seen biir mënu ko koo fay loolu rek la bëgg ci yéen ngeen do benn do benn dank di yëkkati ndoor di tërëndalu ndoor loolu rek la. leneen am na keneen koy ñëw nag balaa ñëw fi da leen wax ne da ngeen ma jox nangam dangeen ma dalal ci nangam reer bi ngeen may toggal nangam lay dox yónnee leen ma sama essance fii ci kaw la bala maa jóg xaw ma man dootuma gone xam naa li xew loolu yëpp amul seen suñu yoon yi ñëpp amu ci maa ci ak auto bëggona ko bëgg dimbalé sax waye daf déglu uduma dafa o Cheikh Ibrahim rek ne ko demal set auto bu nek nga def ci nangam ñu dem kon yéen yëpp li ngeen ko mëna fayé moy bokk nga xamné ne lay bayyi xel bu ngeen xeyé yeen ñëpp ku ne ne ci soudé sa wal té da ngeen di wax né ki lim bëgg ci ñun yalla ko yalla mengo mom itam ta fayal ñuko te lim ñu éene nii yàlla ko yàlla aggale te yàlla dina ko aggale incha allah wax ak jëf duuñ benn wax ak jëf duuñ benn bëri na ay waxkat waaw te duñ def dara waaye kii yéen a waxal seen bopp fii man waxuma ko ba ngeen tàmbalee jumaa ji ba léegi at mu jot def na nangam jigéen ñi sax bi mu fi ñëwee gis ne bëgg na ñëw yëngatu ci dara dafa yëkkat lim am li ko yàlla jox na leen am associé wu ma ak yéen nag lebal naa leen ko weer sàngam da ngeen ma koy fay de liggéey leen lu ngeen ci am ca bénéfice séddoo leen ko seen biir ëllëg si sa doom di jàng ci école wala ca daara ja nga man cee joxe àllarba wala nga jëndal ko kaye te sa borom kër du ko yëg du dëgg autosuffisance boobu nga xam ne bëgg na ñoom yéen ñëpp ngeen am ko am na loo xam ne bu ko yàlla tegoon ci loxoom tey dootu leen ñee kenn dootu leen wax ak kenn seen yon do nek ci dara lu exploiter souf si leen yàlla jox di ci tedd ñaanal leen ko ñun dañu koy ñaanal di wax ne yalla ko yalla fay yàlla na di limbeulam yalla yalla beuril ay kemam li gàmm gi li ni du gàmm waye taxawu taxaway gàmm bu ngeen fi togon ba ebat eh, fii ne da ngeen di gàmmo gàmmo une lañ koy lal wala deux heures kenn ci yéen ñi ñeme naa fanaan àll fi mu nekk bàyyi mu bay lépp ci gannaaw ci kër ga ak ci àll bi nit ñi nga xam ne dañuy yëkkati naa fi mu ne teg ko ci oto yóbbu aw roy dañ koy bu ba mu set ci guddi dégg nga nga riime ci sa kër ñu gaare oto yóbbu ko fekk toolab xaal ñu dagg ko ci guddi gi def ci oto yóbbu dégg nga ewi eh, say jur yóbbu kenn ñeme naa fanaan àll kenn ñemewu ko kon waxtaan ak yéen ci ngoon gi baleen ngeen ñibbi ci seen kër yi gën gënut te kenn du fi wax lu mel nii wala lu ko ëpp